jégalu. mooy jégalu. ci kàddu yi ñu yëkkati fii. ci kàddu yi ñu yëkkati fii. sunu kanam kilifa yu tedd yii. ci sunu kanam kilifa yu tedd yii. ndax ndaw lu ne. ndax ndaw lu nekk. daraje ko yónni la yor. daraje ko ko yónni la yor. te Cheikh Bassirou Mbacke Abdou Khadir mii. te Cheikh Bassirou Mbacke moom sëñ Abdou Khadir mii. moo yor baatub Serigne Touba. moo yor baatub Serigne Touba bi. di ndawal Serigne Touba itam. di ndawal Serigne kon Serigne Touba moo fi teew kon Serigne Touba moo fi teew fekk si njabootu Serigne Fall gépp fekk si fi njabootu Cheikh Ibra Fall gépp kon bu ñu yëkkatee kàddu ci seen biir kon bu ñu yëkkatee kàddu ci seen biir day mel ni waruñu day mel ni waruñu waaye ndigal ndigal nag ci murit nag waaye ndigal ci am murit nag ak topp la sëriñ bi nee na ak topp la waaye ñàkk a wéy ndigal moom waaye ñàkk a wéy ndigal moom ak mooy la sëñ Fallou li nee na ak mooy la kon lii ñuy wax ak topp la kon nee na lii mu ak topp la ci moom ndax ndigal la ko wax loo ndax ndigal moo ko wax loo kon nag Cheikh Bassirou Mbacke Abdou Khadir kon Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir ci ndigalul Cheikh Moustapha Fall. ci ndigalul Cheikh Modou Moustapha Fall. moom sëriñ Modou Mbenda. moom sëriñ Modou Mbenda. di maam Cheikh Ibrahima Fall. di maam Cheikh Ibrahima Fall. mu ngi lay jottali kaddu yu nuyoo. moo lay jottali ay kaddu yu nuyoo. kaddu yu cant. kaddu yu cant. kaddu yu ngërëm. ak kaddu yu ngërëm. yoo xam ne boole na koog. yoo xam ne boole na koog. kaddu yu waa kër Cheikh Fall gépp. kaddu yu waa kër Cheikh Ibrahima Fall gépp. di ko teg sa loxo. di ko teg ci sa loxo. mu nga teg ko ci loxol jëwriñu Sëriñ Tuubaa. nga tegal ko ko ci loxol jëwriñu Sëriñ Tuubaa ji. muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. ñu yeesal ñu yeesal seen njëbal. sëriñ Amdi di wax ni mi ngi yeesal ak njébbalam moo njabootu Cheikh Ibra Fall gépp moo njabootu Cheikh Ibra Fall gépp fas yéene na fa magam yi jaaroon fas yéene nag fa magam yi jaaroon baay yu baax yi jaar fa bu waajuram yu baax yi jaaroon fa maamam jaaroon fa ak Sëriñ Tuubaa maamam ji jaaroon fa ak Seexul Xadiim fi la fas yéene jaar ak Cheikh Mountakha foofee la sëriñ Amdi Fall fas yéene jaar ak sëriñ Mouhamadou Mountakha ànd ko njabootu Cheikh Ibra Fall waaye nag ànd ko njabootu Cheikh Ibra Fall gépp nee mi ngi sàkku nag nee na mi ngi sàkku nag Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanal njabootu Cheikh Ibra Fall gépp dellu gën a ñaanal njabootu Cheikh Ibra Fall gépp ak murit yëpp. ak soppi yëpp. ak soppi yëpp. bali Sëriñ Tuubaa bëgg. bali Sëriñ Tuubaa bëgg. nu mën ko. ñu mën ko. ndax saa suñ ko mënee rek ndax saa suñ ko mënee daan ko jëfee nee na dinañ ko jëfee kon na ñaanal na ñaanal murid yi kon na ñaanal murid yi li sëriñ bi bëgg ñu man ko li sëriñ bi bëgg ñu man ko nee na mi ngi jébbale boppam nee na mi ngi jébbale boppam ak njabootu Cheikh Fall gépp ak njabootu Cheikh Ibra Fall bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw góor ak jigéen mag ak ndaw ak mboolem waa kër maam Saliou Fall ak mboolem waa kër maam Saliou Fall bu nee kër maam Saliou Fall la day mel ni daa doon ñaari kër waaye kër Cheikh Ibra Ibra Fall kon waxaale nañ ñëpp sëriñ Falilu nee na waxaale nañ ñëpp bàyyiwuñ kenn nee na bàyyiwuñ kenn waaye boo tuddee par kenn nag waaye boo tuddee par kenn day mel da ngaa tudd kii day mel ni da tudd kii bàyyi kii bàyyi kii kenn desu ci nee na kenn desul de ku Seex Ibra Fall jaboote rek ku Seex Ibra jaboote ñëpp teewoon nañu ñëpp teewoon nañ ci liggéey teewul yebal nga nee na ku ñëwul it yebal nga sa doom mbaa sa jëwriñ wala sa jëwriñ mbaa mbooloo ma wala mbooloo ma ñu ñëw ci ah, na ndigal te ndigal te ndigal mooy mooy tata mooy tata tata nag ci waxe wolof tata nag sëriñ bi nee na ci waxe wolof dañoo wax ne dañ daa wut ay bant dañ daan wax ne dañ daan wut ay bant sampat ko sampat ko sampat ko ba fett du ci mën a dugg ba fett ci mën a dugg wala bala fetal wala jaasi wala dara wala jaasi wala dara nga mel ne mel ne kon loolu ak rawtukaay la ci ñoom mu mel ni loola kon ak rawtukaay la ci ñoom waaye ndigal nag waaye baatum ndigal mooy rawtukaayu murid mooy rawtukaayu murid yi bu rek nee na bu ndigal jógee rek te te te te na nee te jóg na dara luy seytaane dara luy seytaane mbaa luy yàq wala luy yàq dootul mën a muri dara dootul mën a muri dara buñ ci buñ mënee dara daal nee na buñ mënee dara daal buñ mënalee dara buñ seytaane mënalee dara danoo génn ndigal rek ñun murid yi danoo génn baatum ndigal waaye bu nekkee ci ndigal yi moom waaye bu nekkee ci baatum ndigal seytaane du mën ci ñun dara seytaane du mën ci ñun dara kon nan daa wuti ndigal kon sëriñ bi nee na nan daa wuti ndigal yi xam ne nekk xam ne fa ah na liggéey bi nga xam ne ko murid yëpp jox ko waaye Cheikh Rafal da doon jëwriñ ji nag waaye Cheikh Ibra Fall nag da doon jëwriñ ji waaye lii kat waaye lii kat ku yaakaar Serigne Touba rek ku yaakaar Serigne Touba ci nga bokk nee ci nga bokk kenn desu ci kenn desul de Touba moom ni naan taxul Touba moom Serigne Fallou yàgg naa wax ni Touba taxul li fi nekk ñun murid ñoo ko fi def kon noo ko fi war a jëlewaat kon ñoo ko fi dellu war a jëlewaat ndax borom moom na ko defee woon ba mu sell sell sell kanam lay jëm sell ga moom kanam lay jëm rafet ga kanam lay jëm kon lu ci taq ci kaw rek kon lu ci taq ci kaw noo ko ci def nee na ñoo ko ci def kon ñoo war a ñëw di ko dindi kon ñoo war a ñëw fas jom di ko dindi te dindi gi itam dindi gi itam njariñ la loo xam ni njariñ la loo xam ni ginnaaw ndigal la àndal ginnaaw ndigal la àndal lépp a ngi ci biir lépp a ngi ci biiram day am loo xam ni day am loo xam ni nag mënuñu ko ñàkk suñu borom mënuñu ko ñàkk ci yàlla suñu borom muy ngërëmul suñu borom muy ngërëmul yàlla suñu borom te duñ ñu ko may te mënuñu suñu koo may duñu ko duñu ko abal duñu ko abal duñu ko sarax duñu ko sarax dañu koy jaay rek dañu koy jaay rek li ma barabu tubaab bi nan ñëw ma barabu tubaab bi foofu murid nekk nag foofu murid nekk rawatina ab Baye Fall rawatina ab Baye Fall ngay góor baa ngay jigéen ngay góor baa ngay jigéen ñëpp bàyyi yitte yëpp ñëpp bàyyi yitte yëpp ñëw ci li bi bëgg ñëw ci ci bi bëgg fas ko yéenee def fas ko yéenee def def nañ ko nag nee na def nañ ko nag ba mu àgg bis tey ba mu àgg bis tey ba mel na ko borom bëggee woon ba mel na nag na ko borom bëggee woon def nañ ci lu baree baree bari def nañ ci lu waaye sëriñ bi ko daa wax ni waaye sëriñ bi daa wax ni ku def ak bëggam ku def ak bëggam sa borom def sa bëgg sa borom defal la sa bëgg te def ngeen bëggu sëriñ Tuubaa te def nañ bëggu sëriñ Tuubaa gi kon nag rafet baax kon nañ leen rafetal suñu njort bu baax xam ne li ngeen bëgg xam ne ñaan nag sëriñ baa ngi ñaan nag mbas mii ne ci àdduna ji mbas mii ne ci àdduna te nekk ci xel nit ñi te nekk ci xel nit ñi yéen dalal dalal seen xel yi nee na nan dalal suñuy xel ñun yéen mbas mi dana leen mbas nee na mbas mi ñun dina nu mbas du la doon dara nee na doon doon dara ci ñun lépp dina jeex tàkk nee na lépp dina jeex tàkk ci barke borom bis bii ci barke borom bis bii bis bii ñu jëm nee na bis bii ñu jëm sëriñ Tuubaa yàlla na ci yóbbu ak jàmm sëriñ Tuubaa yàlla na ci yóbbu ak jàmm waaye duñu ci dégg jenn lor waaye nee na duñ ci dégg jenn lor te da ngeen dégg jëm jëpp njëriñ te dinañ ci dégg nag jëpp njëriñ yàlla na ko fekkee jàmm yàlla nañ ko fekkee ak jàmm daa ñaan wax leen amiin te man ma ne ko ni ko borom bëggee rek nee na man ko ni ko borom bëggee rek ndax waxoon na ni kat ndax waxoon na ni kat képp koo xam ne képp koo xam ni sama mbég sama mbég sa mbég la sa mbég la bis bi bu ñëwatee bis bii bu ñëwatee nag ma sant yàlla nag ma sant la yàlla sama borom sant nag sant nag Sëriñ Saliou Mbacke baax ma daana wax ni Sëriñ Saliou Mbacke baax ma daana wax ni bernde bernde dina na ni na ni diggante ganaar diggante ba ci gëléem ba ci gëléem lu ci waay man lu ci waay man na ma ko ci defal na ma ko ci defal sant na ma yàlla sama sant na ma yàlla sunu borom loolu nag loolu nag dafa bëgg loolu nag dafa bëgg ñi am kartan ñi am kartan ñi néew kartan ak ñi néew kartan ñëpp mën a bokk ci ñëpp mën a bokk ci cant gi ndax lu nit néew néew doole ndax lu nit néew néew néew doole xanaa da mën am ginaar xanaa di nga war a mën a am ginaar lu nit bari bari doole lu nit bari bari doole xanaa dina la jaral giléem xanaa dina la jaral giléem kon diggante bi kon diggante bi faaw man faaw nga mën fi dara faaw nga mën fi dara nag gaañi kon nañ jéem kon dara nag ginaar ba ci giléem daal waaye rey ko sa kër yow dong lekk ko loolu lekk yàpp dong loolu lekk yàpp dong la nan jox sëriñ bi ba noppi nan jox sëriñ bi ba noppi doo ko def ci kër yi doo ko dem ci kër yi ndax Seex Moodu Falilu Faal mu baax ma ndax Seex Moodu Falilu Faal mu baax ma ci nekkam ci ak nekkam wax na ni wax na ni jamonoy sëriñ Mor Talla Faal jamonoy sëriñ moom Mor Talla Faal mas naa am ay xew yu xewoon ci kër ga mas naa am ay xew yu xewoon ci kër ga mu yónnee woon fa ay siyaare mu yónnee woon fa ay siyaare ndaw yee nag mu ni ndaw yee nag mu ni leen damaa bëgg bu bi damaa bëgg bu ngeen demee ngeen sëriñ bi damaa bëggoon a ñëw damaa a àgg sowu te ñëw nga xam ne moom daawul dem fenn tàggoowul nga xam ne moom sëñ Modou Aminta daawul dem fenn ci tàggoowul sëñ Mor Talla ni ndaw la bu demee sëñ Mor Talla Fall ni ndaw la bu demee ne ko dana mën a dem te ñëw nee ko dina mën a dem ci ñëw waaye nee ko bu demee nag waaye nee ko bu demee nag na soññu ñëpp na soññu ñëpp ci tabaski yi ñu jëm ci tabaski yi ñu jëm te fàttali leen ni leen te fàttali leen ni leen nañ fàttaliku nan fàttaliku baatum jébbal baatum jébbal ban waxoon ak sëñ bi ban waxoon ak sëriñ bi àllaaxira ka taxoon wax ko ak àllaaxira ja taxoon ñu wax ko kon nag ku ci amul lu muy menn xar kon nag ku ci amul lu dul mennum xar nu ko jël jox ko sëñ bi fab ko jox ko sub sëriñ te dem ca taabal ji te dem ca taabal ji peese ji loolu ko digaloon loolu ko sëñ Mor Talla Fall digaloon xalifa Thierno Fall bi waaye ab Baye Fall waaye ab Baye bu tabaski ñëwee bu tabaski ñëwee mu rey mu jël am xar mu jër ñeent fukki junni te joxul sëñ bi ganaar te joxul sëñ bi ganaar xam nga ne yàpp dong nga lekk xam nga ne yàpp dong nga lekk waaye tabaski woo waaye tabaski woo am na ñu fi toog ñoo ko moom kon nan ñëw ko waajal bu a a kàddu sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Amdi Fall mu sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall tey nga mi dañ ko woo mu ne dafa am yitte yu muy dox waaye ngi ñëw dañ ko woo mu ne am yitte yu muy dox waaye mi ngi ñëw sëñ Saliou sëñ Saliou mi daa wax loolu itam Cheikh Saliou Fall min daan wax loolu itam jot nañ ko jot na ko mu ne moom nañ ko dimbali ndax daa am lu mel ni ngànt mu ne nañ ko dimbali ndax daa mel lu am lu ngànt waaye nag waaye nag sëriñ Cheikh Mbacke a la ngi teew sëriñ Cheikh Mbacke Fall mi ngi nii teew ñu di ko sëriñ Cheikh Assou Ndiaye sëriñ Cheikh Assou Ndiaye sëriñ Sidi teew sëriñ Sidi Fall la ngi nii teew moom sëriñ Modou Moustapha sëriñ Modou Moustapha sëriñ Cheikh Ngounda ngi nii teew sëriñ Cheikh Ngounda Fall la ngi nii teew moom maam Saliou teew sëriñ maam Cheikh a nga nee toog moom Assane moom Serif Assane Fall ak njabootu Serigne Assane gépp ak njabootu Serif Assane Fall gépp kon kenn mel na ni kon kenn ku nekk ñëpp mel na ni Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng li mu a teew Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng li mu a waaye bi ñu ñëwee nag waaye bi moo ma ni moo ko ni naa ko jotali kàddu yi naa ko gi kon ci kàddu mi laay laay jotali kon nee bi nee na kon ngi sant ñëpp mi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey gërëm ñëpp tey ñaanal ñëpp tey ñaanal ñëpp saa borom guddal fan yi guddal fan yi ba baax te wéral yaram yi baax te wéral yaram yi ba baax a baax defal lu xéwal gu yaatu nag defal ñu nag ay xéwal yu yaatu lool yun mën a jekkoo ndigal yëpp yun mën a jekkoo baatam ndigal bi ba lu suñ tubaa bëgg Serigne Touba bëgg ci ñun suñ ko déggee rek suñ ko déggee ñun murid ñu mën ko defal ko Serigne Touba ñun suñ jàngoro nee na ñun nag suñ jàngoro jenn dong la jenn jàngoro lan am mooy li Serigne ko rek mooy li bi bëgg ci mënuñu ko loolu suñ jàngoro loolu mooy suñ jàngoro Fallou Gala Sylla waaye li Serigne bëgg bu ko mënee waaye li Serigne dara méttiwunu dara kon yàlla na ko mën kon yàlla na ko mën ci dara ji Cheikh Ibra